amul dellu gannaaw nañu continuer def rek nañu continuer di ko def te Mari Sagna nag Mari Sagna nag bu dee ci kaso bi seen ci kaso bi France Sénégal ko France ñoo ko rey waaw bu dee ci kaso bi France reyu ko Sénégal nga reyu ko France moo ko rey. Euh, mooy mooy bi mooy numéro un Macron bu waxoon tey mu du fanaan tey prison ñun ba tey amuñu indépendance Sénégal bu continuer ñuy man sama bopp dinaa bind sagara royal mu jël réew mi ndax moom fi la juddoo te moom na am na àq doomu aadama waaw waaw. kon tey bu France ne woon dina man Macky Sall ca campagne ba bi ma gisee mu jóge France. ak médaille légion d'honneur laa xam ne say ñun ay tubaab lañu ba tey les légion d'honneur lañ ko takkal mu wàcc fii Sénégal légion d'honneur ko xam nag même boo ko takkee suñ la dee dugal prison dañ koy tekki dugal la ci biir mais moom du dugg bu ma gisee tubaab yi takkal ko médaille légion d'honneur ci premier commencement campagne laa xam ne ñun ba tey ñu ngi ci dañuy moomatal tubaab yi moo tax euh, Fra président France bu ko neexoon tey tey Macky Sall du faral ci kaso bi te ko Macky Sall du ci mën dara. ñun kay nañu ñaan yàlla Macky Sall abal ñoo jàmm na na bàyyi kenn du ko laal kenn du ko def dara na dem Ablaye Wade ngi fu ko neex jaar ci réew mi Moussa Abdou Diouf bu ñëwoon fii fu ko neex jaar kenn du ko def dara na liggéey loolu na liggéey pour def loolu nga xam ne fu jógee kenn du ko laal loolu rek laa amoon wax am naa lu ma métti lool surtout liggéeykatu senegal bés bu ne nit ñi amatuñu fanaan Macky Sall yàq na luyaas bi da liggéey ba weer dee fay boo fayee 3000 francs ngay dese 3000 francs naka la kan mën a dundee kenn mënu ci